yaa eh, boo ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. tur bi naka la. Tisbe Dia. Tisbe Dia bëggoon xam yaay kan ci Kidi Diop Taif. Ah, man maay yaayam. yaayam man nga ñu wax ndax nga dundee ay station Kidi Diop Taif. Ah, ay station bu métti rek nga jàpp sa doom moom pendant neuf mois dix-sept jours moom c'est pas facile. donc ñu nag dañuy sant yàlla bu baax. gannaaw ba ñu sant yàlla. ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant suñu kilifa yi rek sëñ Mbacke Soxna Lo muy borom dëkk bi waaye muy lu métti rek muy lu métti. ndax bett na leen bi ngeen toogee toog rek ñoo leen jàpp ne kii di Diop Taïf ak liggéey bu am solo bim mu doon amal ci kii di combat bi. waaw bett nañu bett ñu ndax xam taxawaayam ci parti Pastef xam ne képp kuñ ci jàpp rek du bett kenn. comme que dañuy jàmmaarloo nguur boo xamante ne wax dëgg yàlla képp ku ne Pastef laa bokk rek. jàppee nañ la comme rebelle jàppee nañ la comme criminel kon nag euh, jàppam bi bett nañu bettuñu dëgg yàlla naka ngeen dundee nekkinam ci foofu ci prison bi dañ ko daan bëgg a gis ndax daana leen yomb waaw non non do dëgg yàlla nag euh, gis ko moom euh, jafewuñu woon ndax boo dañoo jaar fi ñu war a jaar rek pour gis ko ndax chaque quinze jours lañ doon def visitam xale yi ñoo doon dem di ko seeti man nag yàlla dogal na biñ ko jàppee ba léegi doomu prison seeti ko mu toog rek doyloo yàlla di ko ñaanal mais xale yi moom chaque visite dañuy dem di ko seeti. lan nga ñu mën a wax ci kii di Diop Taif ak duginam ci politique bi. waaw politique bi moom macha allah daf ko doon ci ay maamam ndax fii sa maam ñu ne Dia Mamadou wax dëgg yàlla kooku bu sëtam politique warul jaaxal kenn xam Diop Taif fi mu bokk. Euh, daanañ dégg ne Diop Diop Taïb da daan def nga xam ne ay social fii dëkk bi am na ñu daan def ba ci biir prison bi. Mhm. dëkk bi mu doon continuer bi mu nekkee woon ci kaso bi. waaw xam nga sociale bi moom ndax dëgg yàlla ci deretam la ndax ba mu juddoo à bas âge la commencé sociale di jël ay yërëm di ko maye a bas âge la commencé def social doon ko nag ci ay maam doon ko nag ci ay yaayam wax dëgg yàlla. nga xam ne dañuy judd rek fekk suñu waajur di def social ñu affecté ñu fii ci Taïf ñu jël ñëpp ndax fii la wax dëgg yàlla affectation moo ñu fi indi ñu dëkk boo xam ne fi lañ cosaanoo. Euh, mu mel ni kon wàllum jëflante bi maanaam social bi kon da ko màggaale. daf ko màggaale judd fekk ko fi continuer ko gis ko ay maamam di ko def ak ay yaayam mu di ko def. ndax àndam ak Ousmane Sonko ak dugam ci Pastef ndax lu mu yàgg bëggoon def la wala. non non moom nag euh, wax dëgg yàlla euh, politique bu mu commencé politique ci PDS la nekkoon génn PDS dugg parti euh, pouvoir bi ñu nekk actuel ñi ko tëj tey nekk ak ñoom pendant douze ans mais nag dafa xëy un bon jour rek fekk ma fii ma toog mu ne ma yaay dama bëggoon ñu waxtaan ma ne ko lan la mbaa jàmm la mu ne man daal dama bëgg a bàyyi APR ma ne ko bàyyi APR fan ngay dem mu ne ma damay dugg Pastef ndax vraiment Pastef daal seen programme doy na ma te vraiment Ousmane Sonko daal daf ma neex dafa dugg sama xol ma ne ko ah, est-ce que loolu tam kii na tey nga continuer ci parti daal dama leen di bàyyi ndax nguur gi daal dëgg yàlla maanaam gisee daal arrogance commencé yooyu daal naa bàyyi rek noonu la jëlee décision feex na nag tant que yaay bi ñu déggee ne jàpp nañ sa doom ay quelques mois euh, ñu jékki-jékki libéré ko ne ne toppewuñ ko dara mën nga sa onze mois ñu jékki-jékki libéré ne deful dara toppawuñ ko dara naka nga réa réagiré bi nga déggee loolu waaw ah, métti eh, am lu ma naqari ndax nag eh, jàpp sa doom ah, tëj ko ci kaso bii onze mois dix-sept jours xëy relax toppewuñ la dara onze mois dix-sept jours yaa ngi enquête ci nit ki gisoo ci dara bu sànni xeer du musul toj magasin musul xeex musul fuloo lu topp leader am ah di kañ leader kenn ku ne am na ci loolu sañ-sañam ñu jàpp ko ci loolu tëj ko ci foofu la Sénégal tollu léegi. Um, nga xam ne moom mu nekk doom bu góor nga xam ne dafa war nekk soutien de famille. ñu jékki-jékki rek téye ko prison bu ay 11 mois 17 jours. xam ne moo war a nekk ci kër gi naka nga dundee loolu ak bu mu nekkee ci prison bi ndax lim daan def mu ko daan def léegi. waaw ah, mënu ko def xam nga ne ku ñu tëj bu caabi féete gannaaw. xam nga ne amatoo doole joo joxe sa dépense say doom bàyyi jabar ak say doom bàyyi say sœur ah, sa yaay ah ñu sant yàlla rek ndax suñ borom moom mën naa def lu metti waaye du def lu gënul lépp lu mu def rek xam na moom moo xam lan moo tax mu def ko di sant suma dëkkandoo yi ndax ñi ci jàpp lañu waa Taïf population Taïf mention spéciale ñëpp duma site ndax su ma limee rek damay juum waaye mënuma fay waa Taïf yàlla na leen yàlla fay loolu rek lay ñaanal waa Taïf. Mhm. yaa dafa bëgg Ousmane Sonko am ñu naan Ousmane Sonko nitu euh, kii la dafa bëri fitna yooyu noonu. non Ousmane Sonko moom ñu ko bañ kay ndax foo gis ay bët soppe rek dañ ko ay noonu waaye moom ku ko xam wax dëgg yàlla gis ko man de musuma toog ak moom mais gis naa ko seetaan naa ko te yaakaar naa su nit yëkkatee kàddoom rek war nga xam ban genre nit la muy nit ku baax ku jullite. koo xamante ne nag yàlla dañu ko yàlla fayal te di ñaan suñu président mu génne Ousmane Sonko mu bokk ndax duñ du fitna laaj réew mi comme ni mu ko war a sañ-sañam yàlla may ko ko xam-xam bi wax dëgg yàlla ñu koy souhaité mu génn bokk comme ñëpp comme candidat yëpp ndax sénégalais fii la dëkk. yow tur bi naka la. man maa ñu xam lan nga bokk ak Diop Taïf. Diop sama rakk la moo topp ci man. ah moo topp ngeen dundal ay station ak Diop Taïf. bon xanaa onze mois de bànneex rek lañ ko mën a tuddee mënuñu ko tuddee naqar ndax xam nga ñu tooñ la tëj la te c'est trois troisième fois ñu koy arrêté. dégg ko ñun dafa naturel ci ñun te dañ ko taamu ndax dañ ko ciy soutenir ndax euh, ci lim nekk ñun dañ ko doon def donc nekk ci beneen côté moom mu nekk ci côté bi ñu ñëwaat tey ba dajewaat ci terrain bi donc dañ ko ciy soutenir rek. onze mois de de bànneex lañ koy tuddee. ndax bett na leen bi ngeen toogee rek ñoo leen jàpp nañ kii di Diop Taïf ak ni mu daan sonnee ci combat bi. lamin baar Bara Diop Taïf donc euh, bettuñu parce que xamoon nañu à tout moment nañ ko arrêté waat ndax Sénégal nekk fi waxuma la nga jege Ousmane Sonko mais nga nga ngay tudd Ousmane Sonko sax léegi deli la waxuma laa na nga jege ko te liñ ko jàppee defe naa vidéo ñun ñëpp seetaan nañ ko. ndax nekki nam foofu ci kaso bi nu ngeen ko dundee pour bu ngeen daan dem di ko seeti ndax amoon na ay jafe-jafe pour gis ko. waaw parfois mu am jafe-jafe parfois ñu dem duñ ko gis parfois mu am jafe-jafe am jafe-jafe mais ñun li ñu li ñu li ñu li ñu ëppaloon solo ci tëj bi ñu ko tëj mooy dañ ko tëj ci kaso ba moom mu nekk ci kaso ba di fa def beneen mission. mooy ñu tëj la ci kaso nga nekk ci kaso di def mission ci biir kaso bi ndax moom loolu mooy loolu ci loolu lañ ñëpp xam ñëpp xam nañ ne Diop de avant ñu koy tëj sax ñu nekkoon ci kaso ba yëpp moo leen doon yóbbul añ yóbbu reer donc mu fekk ba mu demaat foofu di def beneen mission yombutoon ci moom tamit parce que kaso ñëpp xam nañ ne yombul parfois ñu tëj la ñu la gisee ngay def yenn yi ci biir kaso bi tamit du neex ñi fa nekk mais ñun li may wax toujours rek yàlla moo ko may famille boo xamante ni ñun bon mën nañ ne dañu judd fekk suñuy maam doon politique moom mu ñëw nekk ci donc léegi li ñu mën rek mooy soutenir ko ci te pare jàppale ko ndax mën nga ban mission la doon dox euh, ban mission Ngor dafa doon dox waaw dimbale détenu politique yi di leen dimbale di ñi nga xamante ni di dimbale ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk am ay problème mu lekk am na ñoo xam ne seen famille liggéeyam bi muy liggéey ci nongo daara yi li muy liggéey ci dëkk bi ku am problème ku feebar loolu loolu la mel yàlla moo ko bindee loolu nim ni mu doon def fii rek loolu doon yóbbu ci kaso ba bi mu demee tamit ñi nga xamante ni mooy famille am ñi fi bàyyi muy Bassirou Taye tamit ñi ngi doon def seen ngi doon def lu ñu mën ci daara yi ñi ngi doon mu doon di ko yóbbu ak dimbale waat dimbale def ci kon jàpp bi fi jàpp teewul to mission bi doon dox fi tamit doon continuer parce que ñi naataangoom yi nga xam ne ñoom la nekkal fii dañu nekk ñu engagé ñoo xam ne ñu ko soutenir lañ ñu ko jàppale lañ parce que ñun mënuñu leen a fay ñun famille bi parce que Pastef Taïf nekk na ay jeunes ay jeunes yoo xamante ni ñoom ñëpp même même même vision la ñu am xam nga ngay liggéey ay nit nga nekk kaso ñoom ñu nekk ci terrain bi di liggéey yombul mais Pastef Taïf dañ leen di jaajëfal ñun famille Diop Taïf parce que mënuñu leen a fay mënuñu leen a fay ñoom ñëpp dañuy mobiliser wu nekk ci social bi xam nga di liggéey di def lépp donc mënuñu fay ñu leen a fay Pastef Taïf kon tur bi fàttali tur bi. Ndeye Fatou Ndeye Fatou ñoo ngi lay jaajëf jaajëf jërëjëf. ginnaaw bi ñu la nuyoo tur bi naka la. Ritu Mbeng. Ritu Mbeng. Ritu Mbeng bi. nga nekkoon lan si Diop Taïf. voilà man may rakk ci Diop Taïf maa topp ci moom. Ritu Mbeng. Ritu Mbeng. di sóor ci Diop Taïf. yaay sóor ci Diop Taïf. Mm. naka nga dundee arrestation kii xam ne mooy sa mag waaw arrétation Diop Taïf moom nekkoon na li nga xamante ne nii vraiment ñu dañ ko dund ak courage parce que Diop ku ko xam ku xam Diop xam ne Diop. moom même bi mu nekkee ci pendant tout sa temps nekk ko prison ci Rebeuss mu ngi doon def benn liggéey bi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ay mbokkam sax suñu xel dafa daloon suñu xel li mu dalee mooy pendant tout sa temps lu lépp yónnee leen ma mère Gadou yónnee leen ma lii ak lii lépp li nga xamante ne nii da ko doon jëf di ko defa détenu politique yi metti woon na nag benn ko mais sant yàlla mënoon na fa duggee neneen ci beneen anam ndax bett na leen bi ngeen toogee rek ñoo leen jàpp nañ ci di Diop Taïf ak liggéey bu am solo bi ñu amal ci xeex bi jàpp Diop Taïf moom bettuñu bettuñu parce que ni mu ko lewee Ousmane Sonko foo gis Diop gis président Ousmane sonk ñooy nekk tout temps kon bi ñu nee arrêté neen Diop Taïf en tant que patriote ñun bettuñu parce que dafa nekk nit ki nga xamante ne nii réewam doo nga ko ñor dara ñoru ko dara ñoru ko dul réewam kon tey bi ñu ne jàpp nañ Diop Taïf ah malgré que dina xaw a metti nag mais après dañ ko dund ak courage dañ ci nekk ak moom parce que moom buggul à chaque fois dara di suufe moom chaque fois day jóg siggi siggi ci kanamu ñëpp moo tax noonu la ñu kii woyoon ak moom vraiment. naka ngeen dundee nekk nam ci biir kaso bi ndax bu ngeen laa gis daana yomb pour yéen ngeen gis ko wala déet. waaw Diop moom vraiment bu ñu amaan visite ak moom danaan bu ñu nañuy nañuy siggi nañuy free pendant tout ce temps mu nekk ko ci prison bi bu ñu demaan seeti ko visite dañuy am fierté. benn côté ci début bi daf doon xaw a metti pour ñu gis ko ak fi ñu ko gisee atu place am mais dafa wane jàmbaar wane ne moom fii mu nekk détenu politique yi ñi ngi fa ñi nga xamante ne nii seen i famille duñ leen fa fekk ñi nga xamante ne nii seen i mbokk sax xamuñ ne jàpp nañ leen muy def liggéey bu am solo nag ci biir prison bi liggéey bu am solo ba jour bi muy génn nee naa leen bàyyi nañ Diop presque 16 heures Diop 19 heures la génn kaso 19 la génn buntu rëbës mi ngi doon lijjanti détenu yi nga xam ne moom la bàyyi ci waa chambre xool leen seen lekk yi xaalis bi fa des mu leen koy jéem a partagé et tout kon xam ngeen ne loolu yombul yombul mais sant yàlla. mën nañ xam ngeen taxawaay la amoon fii di Pastef Taïf. waaw Pastefu Taïf moom mën nañ ne mooy libeeru leaderu Pastefu Taïf Diop moom nee nañ ne ku ne Taïf ku ne Taïf da nga naan Diop. Diop Taïf tax na turu Taïf bi partout dans le monde Taïf nit xamoon nañ ko ci sëñ Mbacke Soxna Lo partout fépp da Diop Taïf la ñuy wax mu nekk nag di liggéey Pastef Taïf liggéey bu am solo liggéey bu am solo dem nañ ba ne kon pour ñun Diop daal macha allah Diop daal Taïf daal bu ñu nee Taïf liggéey bu am solo mi ngi ko doon doxal ci parti fu Pastef Taïf ànd ko nag ak waa Pastef Taïf ànd ko ak waa jeune Taïf jeune Taïf tamit gëm ko lool mu ci maire yi di ci paa ñëpp jox ko bopp c'est pas facile sa xale la Diop la man la mag man la mag kon xam ngeen ne Diop xale la ñu noonu ak taxawaay boobu noonu amoon ci Pastef tey ndax biñ ko tëjee amoon na ay jafe-jafe demam bi amoon na remarque bi. non moom bi ñu ko arrêté Pastef fu tey da doon dox. parce que malgré que bi mu nekkee ci prison bi waa Pastef Taif ku ci mel ni ñoom caan ñu ngi doon doxal liggéey bu am solo Pastef Taif malgré que Diop nekk fi ak Diop bañ fee nekk mu nekkee ci prison mi ngi communiqué ak ñoom dara benn amu fi faay faay moom amul Pastef Taif mu nekk fii ak ci ginnaawam ñu ngi doon liggéey liggéey bu am solo waa Pastef Taif vraiment mu mel ni moom danaa yëngu ci wàllum social la su mel ndax moom bi mu nekkee prison daana continuer di dox ba léegi waaw social yi moom doon na continuer musul taxaw mu ci ballu fëgg njaay yi ndongo daara yi di ci euh, ndog yi mu doon defar Margarita Koor fekk ko fa lépp li nga xamante ni social boo xam ne Diop mi ngi ko doon def da ko continuer woon ci ndongo daara yi ci hôpital yi dara changé wu mu ndax man danga xam Diop ban genre nit la woon ah moom ban genre nit la woon nitu nit la avant politique. waaw avant politique nag moom jàngi bu weesoo mi ci jàngam mi ngi ci ngi ci kër gi mais avant politique bi dafa nekkoon social. Diop dafa yàgg def social depuis mu nekkee xale. social moom fi lañ ko man dama màgg fekk ko muy def social. social moom vraiment social dafa ko njëkkee woon ci lépp avant politique. Hmm. Rapat lañu tur bi Ritu Mbengue ñoo ngi lay jaajëf merci beaucoup merci beaucoup la prochaine. sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di baax a baax sëñ bi. tur bi naka la. tur bi Modou Thiam mais ñoo ngi gën a xam ci bëggoon xam lan nga bokk ak kii di Diop Taïf. Euh, lan ngaa bokk ak Diop commencé waat di Diop Taïf. waaw li ma bokk ak Diop Taïf. mooy d'abord dañoo bokk dëkk ci dëkk bi euh, mu nekk jeune nekk koo xamante ni tamit euh, dafa nekk nit ku amal njariñ euh, jeunesse tey dafa nekk nit ku amal dëkk bi moo tax man bi ma ko découvrir boobu vraiment subaa ngoon bu dégg bëccëg damay ànd ak moom ci lépp mu dugg loolu moo boole am naka ngeen dundee arrestation Sidy Diop tey. waaw métti métti ndax nit. nekk ci dëkk di am yu am solo yu ñu def ci dëkk di jàppale jeunesse bi di jàppale ndongay daara yi ñu xëy au bon jour dégg ñu ne arrêté nañ ko ñu ne lan lañ ko arrêté ñu ne doo doon def live yor téléphone am di ñu arrêté ñu foogoon ne sax comme ni ñuy arrêté yenn nit ñi def di dem ci ay ñu arrêté la après deux jours dañ lay bàyyi mais ñu toog un mois deux jot tey déggoo ci dara organisé woon nañ fii benn conférence boo xamante ne lañ ci doon wax woon ci arrestation bi woon ñu téye ko huit mois xëy xëy seetal ko ba mu set wécc ni ko mosul laa toppee dara vraiment loolu lu ñu métti la trop trop trop trop trop trop ci arrestation bi jot euh, ndax bett na leen bi ngeen toogee rek ñu ne jàpp nañ ko ak combat am solo bi mu doon amal kii bett nañu mais tamit euh, bett nañu benn côté ndax Diop wax dëgg yàlla li mu daan xeex. ku ko musa xeex gis nañ euh, li ci fekk mooy lan askan wi nekk ci jàmm dund ci jàmm li ñëpp moom ñëpp jot moom loolu la yàgg a xeex loolu moo yàgg nekk combat ba tax na biñ ko arrêté vraiment bi ko nit ñi déggee xëy na dinañ ni baara warul def luñ koy jàppee ñooñu lay bett mais bu fekkee ku ne xam na ni gouvernement du Sénégal fu ñu toll nii ñi dégul sax dañ leen jàpp asamaan ñi nga xam ne ni dañ wàcc terrain bi di sensibiliser nit ñi ak maanaam euh, combat bi mu doon combat wu ci kanamu président Ousmane Sonko ku ne xam na ne président Ousmane daan dem li ci mel ni nemmeeku tur wala dara liggéey bi wéy bi ci baara jóg daan def waaw kon bu xëyee xëy ni ñu jàpp nañ ko bett nañu si benn côté benn côté bettu. ndax mën nañ xam moom bi fi nekkulee naka la passé bu tey doon doxee. waaw manqué nañu manqué nañu ndaxte wax dëgg yàlla mooy suñu leader te moom lañ daan xool moom lañ daan àndal mu ñuy wax def leen mu ñuy wax bàyyi leen mais vraiment tamit ñu si euh, sant bu baax suñu grand euh, suñu sàmm. moom nga xamante ne mooy assuñu coordinateur bi baara bi baara nekkul woon moo ñu euh, moo ci jàppoon ànd ak ñun ay Xaadim Seck ak soxna Gaas Mbow jigéen ñi ay Ahmada Ahma Ahma Ahma Gueye gars yi ñëpp jàpp si vraiment liggéey bi musul taxaw tamit vraiment ndaxte nekkon na ko xamante ni jege woon nañu trop mais di fàtte mu dem mooy euh, euh, li mu fi bàyyi lim liggéey bi mu fi liggéey liggéey bu rëy boobu moo tax amaana argent bi sentir ko noonu sentir duñ ko doon sentir Euh, sànq sa biir wax doon wax ne doon jàppale ay borom daara maanaam wàllum social. Mhm. ndax moom bi nekkee ci biir prison bi daan na continuer di dox waaw wala. man seede laaj ndax bi nekkee ci biir prison bi man dama ubbi woon benn keñot boo xamante ni pour moom la fexe nu ko jàppalee ndax comme que nit social la woon bi yàlla dogalee ba euh, keñot bi. Euh, bi ma ko lancé man maa ko lancé man personnellement mi ngi toll ci ay sept cent et quelques mille bi mu ma woowee téléphone ma wax ko ko daf ni ma man lépp lu ma am askan wu Taïf la. ni ma jëlal leen nii nga joxal ma ko daara yi benn bi leneen beneen xaaj bi si des nga dugal ma ko ci biir Pastef tey seen activité ngeen def loolu xam nga nit ku social rek moo mën loolu malgré li ñu la teg ci injustice yëpp yow lu mel noonu yow xalaatoo safar xalaatoo dara mais yow da ngay xalaataat doo nga daara yi ak li nga xamante ne moo la xam ne xeex muy Pastef nga fexewaat moo xamante ni noonu la Pastef du organiser waat ba continuer seen activité. ndax yéen ñi daan dem di ko seet si wala ñi daan dem di ko seet sax daan na yomb pour ñoom ñu gis ko. waaw vraiment côté boobu moom euh, mosuñ ci am problème ndax euh, comme bépp prisonnier rek yoo xamante ni sur visite la boo wutee ba am ko boo demee da koy gis facilement waxtaan ak moom tey boo fa demee vraiment da ngay da ngay maanaam sax kii est prisonnier ndax nit la koo xamante ne boo demee yaatu gi muy gis ci yow ak dal gi muy gis ci yow wax wax joo xamante ne yow da ngay fàtte ni sax la nekk waaw mosuñu am problème daal a bi. Euh, Modou ñoo ngi lay jaajëfal. waaw ñu jàkkaarloog euh, ñenn ci ñi nga xam ne ñoom la nekkal noo loon foofa ca Rëbës ñu war a indi ay témoignages ci ci moom Diop Taïf naka lañ nekkee woon ak moom euh, asalaamaaleykum sëñ bi nga fàttali ñu tur bi. salaamaaleykum maa ngi tudd Pape Fara Ndiaye maa ngi eh, dëkk Grand di militer même temps euh, au niveau de la commune. section mm. communale bu Grand. Mm. Euh, di leen nuyu de passage à travers euh, le coordonnateur Babacar Tamidou et tous les membres et sympathisants de de de de Pastef Grand. jërëjëf ci nuyoo boobu noonu tey bu ñëwee ci li nga xam ne moom mooy nekk bi nga nekkandoo woon ak Diop Taïf foofu la ca Rebeuss yan témoignage nga ñu mën ci. nekkiinu Diop Taïf foofu nga xam ne moom mooy. non loolu moom dañ ciy sawar wa parce que nekkin moom nekkin bu rafet la. Hmm. nekkin bu sell la parce que jóob moom euh, man dama ne woon sax yàlla daf ñoo booleeg moom. Hmm. Euh, de par son ses actions sociales mu doon def. Hmm. donc nekkoon na nit ku laabir nit ku yaatu. nit koo xamante ne lépp lu mu am rek daan ko bokk ak prisonniers yi. xam nga surtout les détenus politiques ñi nga xam ne dañ lañ jàpp ci dossier Ousmane Sonko. donc euh, vraiment moom euh, lañ ko daan jox wala lañ ko daan dugalal lépp lép lépp lépp lépp lépp da ko doon partagé hmm. vraiment sonn si taxaw si képp koo xamante ne am nga problème foofu noonu. Hmm. tey jii nii Diop taxawul na la taxaw bu rafet. xam nga hmm. képp ah. koo xamante ne tey jii nii. Euh, yaa ngi doon rencontre ay difficultés par rapport parce que condition de détention yi yombul woon. xam nga donc booy yi dañuy xaw a tumuraanke donc ñoom ku ci amoon problème hmm. ko fa fekk. non ñu ñoo hmm. parce que ñoom parce que moom bon ça hmm. ba ñu ko jàppee naa bu mu libéré yàggul pense que no décembre daaw la woon. Ah. donc mois euh, def na ko ci kaso gi donc ñu ñoo ko fa mu dalal ñu waxtaan ak ñun comme tous les autres responsables waxtaan ak ñun dalal suñu xel. donc voilà. nekkoon na koo xam ne daal bi ngeen ñëwee ci. kaso bi bokk na ci ñi leen accueillir waaye tamit euh, ci kaw accueillir boobu noonu dafa daf leen a dalal fexe ba affaire bi émotion bi mu waroon a am ci yéen amu ko. non foofu moom bon mën naa ne sax suñu ay mbokk patriote lañ fa fekk. Hmm. donc euh, yéen bi xëy na peut-être diisoon na parce que kaso hmm. yombul. Hmm. xam nga euh, da ngay tumuraanke doo gis say mbokk doo gis kenn. yow vraiment daal. di nga nekk ci ay conditions yi nga xamante ne euh, peut-être mais boo newoon ci biti du demee noonu. Mm-hmm. waaw donc vraiment buñ fa demee daal euh, ñoom daal ñooñu ñooñu dalal daal. xam nga mm-hmm. waxtaan ak ñun delloo si waaj ñu xam nga ba nga xamante ne que tey moom kaso moom wéetuñu fa wax dëgg fa yàlla. Mm-hmm. su ko defee ngi joxal ñu micro bi tamit euh, ñu bàyyi la rek nga présenté wu. waaw man la Moussa Sylla. di militer Grand F. waaw di nuyu balaa may tàmbali ma nuyu waa section bi yëpp waa Grand F ndax ñoom. bu ñu nekkee foofu tam taxaw nañu quoi hmm. balaa may dugg si ku ñu at tax a ñëw fii muy Diop ah. hmm. hmm. waaw kon eh, mel na ni yéen ñaar ñëpp Pastef Grand Yoff ngeen nekk. Eh, ngeen dugg kaso fekk fa Diop Taif eh, ñu ngi dégg léegi nii sa mbokk bi moom tamit wax ci Diop Taif. koy confirmer yow tamit. waaw dama koy confirmer ndax man. bokk naa si ñu ma jox courage ma demee foofu. parce que dama ñëw fekk lépp ah. ñu organiser ko. luy dugg si kaso bi si ñoom seen loxo la doon jaar te mu ñu ñëwee. dañ hmm. ñëwee ñoom ñoo ñu dalal nàndal ñu. Hmm. lan moo fi lan la fi daw solidarité moo fa am loolu tax ñoom euh, jafewul woon si patriote yi foofu. Hmm. ndax dañ ñëw foofu ñu fekk man bu may ñëw foofu fekk naa mu def war a def ay cinq mois. mais bu ma ñëwee gëm yàllam ak courage am ak jàppale patriote yu fa nekk. mën si laa si laa si laa roy ba mu joxoon ma sax benn chambre chambre onze man maa fa nekkoon point focal bi lépp lu ñu dugal si kaso bi rek. si loxoom lañ koy teg man mu ne ma yow dénk naa la chambre onze. Hmm. ndax luñ fay dugal booy ñu ngi jooy ne gars yi nekk si bunt bi dañ koy dañ koy récupérer di ko di ko jëfandikoo leneen. Hmm. du fi ñëw léegi dinaa ko teg sa loxo nga séddale ko. moom Diop Taïf waaw moom Diop Taïf hmm. tey bu fekkee ne fekk ngeen ko foofalee ca kaso ba kaso li ñuy wax ne méttiwaay bi nga xam ne métti na yéen a ngi wax ne patriote yi solidarité moo fa am. ndax kon méttiwaay bi tax ñuy wax dëgg-dëgg am na ko. waaw metti na si benn côté mooy. Hmm. sa liberté bul la xañ nga war a liggéey benn dafa ñuy liggéeyoo. Ah. mais tamit yomb na si benn côté mënoon nañ ñëw foofu dugg fa. Hmm. gis fa leneen luñ jaaxal. Ah. mais bu ñu ñëwee saa suñu génnee ñu ñëw toog ensemble ñu hmm. échanger mu xamal ñu lan la kaso bi di bëgg ak lan la kaso bi di bañ. waaw règlement fexe leen tegu si réglement soo leen si tegoo règlement kaso bi doo am benn problème. waaw ñu nekk fi nekk lu rafet nag lan moo tax tey mu pare génn ma génn. Hmm. mu am bis bi ma sawar si ñëw man tey jour ouvrable la waroon na ma fekk ma dem liggéey. Hmm. loolu moom moo ko liggéey. amaana tey suñu duggoon si kaso bi moom mu jiituñu fa waroon ñu wax fu ñuy toog waxuñu ko su génnee tamit duñ ko faale. Hmm. am nañ fulay boobu quoi. bari dañuy wax ne affaire sociale moom la daan na ko def ci biir kaso bi. ndax mën nga confirmer loolu waaw waaw daan na ko def si kaso bi. ndax man bu may dugg foofu weeru koor la tombeel. maa ngi lu ma gën a marqué ba foofu garde yi dañ koy wax mm. mooy bu mu ñëwee andi ay ñàmpe mm. andi saabu mm. loo loo xalaatul rek da koy ñëw andil booy foofu ndog yi da ko doon andi foofu man daf ma doom jaaxal sax moom fan la koy jëlee góob sa xamoon naa ko nii ah. mais connaissance bu mu mun a am ba nit ñi di ko jàppale loolu tamit du moom kese xam naa ne am na ñu si àndal di leen wax daal ku jar a jàppale la ndax lépp luñ ko tegoon si loxoom rek fexe na ba yeggoon si détenu yi te man du man kese maa koy témoigner ku génn tam soo ko laajee dina la Diop mm. Taïf foofu du ma ne moom moo ëpp lu muy def social foofu mais bokk na si ñu ëpp li ñuy def social si si prison la. Euh, jërëjëf ak ak beneen côté tamit mooy mutation ñëpp xam na ne chambre yu gën a mooy chambre trois mm-hmm. chambre neuf chambre dix ah. foofu ñu fa nekk condition yi sangu bi day cinq heures du matin la ñuy tëj ndox bi ba ba ba vingt deux heures ah. la gars yi di rang pour sangu mm-hmm. tëdd bi tam baaxul woon mais ku ko ñëw gis si connaissance am dina la la jël sa tur liste lay yor Ah. soo ne ko dama bëgg chambre mu ne la fan nga bëgg a dem hmm. nga wax ko mu ñëw fexe ba gisanteeg garde yi gisanteeg chef de cour bi hmm. ñëw ne ko ak ah, kii de sama booy la condition am nekkul foofu da ngay jékki ñu ne la hmm. kaay jëlal sa bagage nga ne leen la ñu ne la da ngay dem chambre cinquante wala yeneen sambur yu gën a tane nga laajteel kan moom moo lijjanti loolu ñu ne la Diop Taïb la loolu tamit lu baax la di wax tamit moom comme génn na mu bañ a bàyyi loolu ndax am na ñu fa ah. nekk ba léegi su connaissance am su mu nee di dem foofu barki démb rek soxna Abdou Aziz Niang kooku sama xarit la ñu ngi jàpp jëkkëram. Hmm. Abdou Aziz Niang ñu ngi ko jàpp si force spéciale. vidéo hmm. baa fii démb la ma ko envoyé. Hmm. dafa ànd ak euh, soxnam. dem ba foofu lu mat soixante quinze mille mu jënd ko ay ay ay ay ay ay meew ay suukar. ay saaboog yëpp dem dugalal leen ko ba soxna si di ma ko envoyé ma ne ko lii soo ma ko waxoon de damay itam ànd ak moom foofu noonu. ndax lii lu rafet la quoi. ndax loolu la fa nekkee woon su génnee di ko def. dañuy suñu xel day gën a dal quoi di ko ñaax rek mu gën a taxaw si côté mm. boobu. ngeen déplacé wu Dakar ñëw fii. Mm. gunge si ko ci Taïf. ak yiir bi nga xam ne waa waa Taïf euh, euh, réservé na leen ko waaw. Mm. waaw loolu moom wax dëgg yàlla ñu fi gis. sut na suñu njort. defoon nañ ni comme ñun bu ñu génnee am na nay ah. mbokk am na nay ñun nekkal sections yi sections yi. di fa di fa milité. accueillir nañ ñu mais man bu ma gis fii bu ma lu ma gis fii ñu ma àndal yëpp. dem seen kii man gisu musuma ko fa gis quoi. Hmm. waaw fii maire yi ñëw nañ xale yi ñëw nañ jigéen yi ñëw nañ te loolu moom moo ko wane. am naa hmm. su fa nekk su amoon beneen taxawaay bu mu fi taxawoon. su hmm. génnee kenn ko faale. boo xam ne soo leen yëgul du la faale. kon su demee ba loolu noonu dañu xel day dal. suñu xel day dal si ànd ak bu mu ànd ak Ousmane Sonko suñu xel day dal si ab avenir bu mu war a am fii nii si Taïf. di wax ñaan lancer appel rek. mooy doomu Taïf yëpp jàppale ko xam ne seen doom la. bugul dara comme ñu nekkul Taïf lay defal suñ ko suñ ko gënee jàppalee gëm naa ni lu mu am dina ko bokk waa Taïf. Hmm, jërëjëf. ñu ngi sant di la gërëm waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu sama frère. Ah. patriote maa moom lañ jàppandoo même jour. Hmm. mais yàlla dafa def ma ma njëkk ko génn. Ah. te buñ fa nekkee. Hmm. nekkin bu rafet lañ fa nekk. moom nekkin bi rafet lañ fa nekk ba man nu mu fa génnee bàyyi ko fa ba moom nu mu génnee. dara ñaawul te bu mu génnee tamit mu ngi nii ñu ngi ñu ngi ñu ngi ànd ensemble di ñaan. ànd boobu noonu gën a jëm kanam quoi. yaa ngeen mm-hmm. jëf. baax ñu ngi jàkkaarloo Djib Ndiaye moom tamit nekk euh, xaritu Diop euh, Taïf bokk ci ñi nga xam ne doon nañ ko jàppale bi mu nekkee ci kaso bi dañ koy bàyyi mu nuyoo moom tamit ñu euh, présenté wu encore. Mm-hmm. maa ngi di sant ñëpp di sant waa Taïf bu baax a baax gis nañ ni ñu dalalee di nuyu Diop Taïf lu baree bari bari di kontaan nag si gisee buñ ko gis nii waaw di kontaan si gis buñ ko gis. Mm-hmm. mu ñëwaat fekkaat ñu suñu loxo di ñaan yàlla yàlla gëjloo ko fële te yàlla bu fa dellooti ay objectif mu nekk leneen daal waaw balaa loolu sax jaale sama benn mbokk patriote boo xam ni dañ doon ànd maamu social lu baree bari hmm. muy Papito Kara ah. waaw di jàmbaar dëgg hmm. yàlla def gis ngeen dee bu metti bu deewee jël gaal te nekk jeune boo xam ni ku amoon avenir si àddunaam ku bëggoon dara daal Hmm. am ay jeunes yoo xam dañ doon roy si moom hmm. tey gis nga réew mu demee nii moo tax mu daw génn hmm. jërëjëf euh, Djib euh, ci di euh, wax ne ñi ngi jaalewaat moom tamit Papito Kara demoon nañ ci li nga xam ne moom mooy ñaan biñ ko doon ñaanal waaye damay ñëw rek ci li nga xam ne moom moo waral suñu teewaay fii muy Diop Taïf ak nekkinam ci kaso bi wax na ne yaa ngi yaa ngi daan jàppale xaalis bu bari ci sa loxo la daan jaar yan témoignage nga mën a def ci moom. waaw loolu bu si waxee dama si sawar a wax ndax am na ñu ma si àndaloon doon si liggéey mm-hmm. ñuy ay gor dëgg muy ñoo xam ni mayewuñ dara. Mm-hmm. si loo xam ne wàllum njublang la déedéet. waaw. Ah. Diop tey moom moo créé volontaire patriote international. Mm-hmm. moom moo ko créé moo Pape Ibrahima Gueye nay leer. Diop tey bañ koy doog a jàpp boobu jàpp guñ Pape Ibrahima Guèye leer man ak Pape Ibrahima Guèye leer ak Fatima Zahra waa bureau bi daal bari na mhm. ñoo si nekkoon doon si liggéey mhm. lépp lu mu soxla Pape Ibrahima Guèye leer danaa ma jibi kooku yaa am gën oyof tànk bu ñu waxtaanee si bureau ba pare ma dem jënd affaire yeeg yëpp ñu ànd dem dugal mhm. muy nit boo xam ni moom du la woo sa ba wax la soxlaan su la wooyee lu lay njëkk wax mooy diw ak diw soxla nañu cinq mille day compter ba mu mat lu bari rek hmm. waa baax na hmm. damay profité di sant patriote volontaire waa volontaire patriote di leen sant bu baax a baax a baax surtout maa ñu nekk diaspora surtout ñu nekk desporaa ñu ngi leen di sant bu baax a baax baax a baax a baax que ñoom dañuy taxaw ci terrain bi nekk ñu fi de mais seen doole day ñëw ci terrain bi seen doole day ñëw si biir détenu politique yi bu ñu soxlaa ay silenement buñ ñu soxlaa ay tuway coton bu soxlaa kawas lépp lu ñu mën a soxla buñ ko jëndee dañ koy photo dugal ko ci groupe bi groupe bi ñëpp gis. Hmm. bind facture yeeg yëpp gaa yi gis. wóolute boobu la ñu am nag jot tey moom moo ko def rek ndax bu ko neexoon tey bu créé groupe am mu ne non volonté patriote international ñu ci bokk bari nañ ñi xaw ma leen xamaanu ma leen du ma jël euh, trésorier wala dara di ko teg seen loxo. Hmm. bu ko neexoon indi ay def leen. waaw ah. mais def ko dafa ñëw xool ay jàmbur am ci ñun yaakaar. Hmm. loolu day sàmm suñu ngor ba loolu bu mu jeex incha allah. Hmm. Euh, yaa ngi wax volonté euh, patriote comme ñi nga xam ne ñoo leen doon jàppale ndax yomboon na tamit bi nga xamee ne Diop bi bi ko créé woon mi ngi ci kaso bi collecté xaalis ngir détenu politique yi ndax doon na yomb ngeen ko doon amal. waaw mun naa wax ni yomb yo joxe xaalis xol xaalis sax. Hmm. damay dégg sëñ Sàmbaay danaan képp ku ko génnee ba joxe ko rek def na lu rëy hmm. doomu aadama bu nekk surtout ma waa diaspora hmm. dañuy génnee xaalis bu doy ne lii def lañ ko si détenu politique yi hmm. te duñu mus a découragé te su fekkoon sax ñoom dañ ko yemal si détenu politique yi sax nga ne waaw mais ba si ñu si nekk si terrain bi am ay problème famille ñi seen liggéey yàqook yëpp dinañ jéem a xool lan la ñuy yëkkati teg ko sa loxo pour nga bañ a xalaat toog wala dara baraña lesi les bara ba looloo waral tey jii xaalis bi tey complexe sax du métti yenn métti yi parce que ñoom ñooy génnee xaalis bi jox la nga dem def li nga ciy def ñu xam ne kii lii ni nga ko def kat def li nga indi si ni nga jënd ak yow li nga indi si facture méngoo nañ mm-hmm. wala ñu am yaakaar si yow def ko mais lépp rek Diop tey ak Pape Ibrahima leer ñoo ko def si ñun mm-hmm. ndax wóolute bu ñu am si ñun ba teg ko si ñun ñaan nañ yàlla mu continuer ba bu ëllëgee volontaire nekk ay mouvement nekk leneen ak leneen leneen ndax volontaire mu ngi si ginnaawam. Hmm. ndax volontaire am na quoi. Euh, yaa wax xaalis bu bari bi jaar ci sa loxo yëpp jëm ci détenu politique yi te ci. Hmm. génn na ñëwaat na ci seen biir xaalis bu bari kóolute moo ko lan ngay xaar ci moom jamono bii. waaw li moom mooy lépp si moom lay gën a yombee ndax moom nekk na fa génn na hmm. fa. xam na ah. jamono ji nii seddaay bi lu booy gën a soxla. surtout ñi nga xam amuñu baat. nga tey Diop Taïf tey boo nee Diop Taïf rek parce que moom bañ koy defal manifestation bi rek. pancarte hmm. yu ñu defaroon mooy yu bu mu solee tiset bu noir bi. waaw ah. yooyu dem na ba États-Unis fu ne pancarte yooyu yëpp ñoo ko defar. Hmm. ak uh, ay tiset yu baree baree bari ñoo ko defar pour manifestation bi parce que manifestation boobu tous les détenus politiques la. Hmm. mais dañoo taxaw ne carrément ne comme que tous les détenus politiques la te Diop Taïf day leader si ñun. nañ fexe ba moom mu gën a fës si. nañ fexe ba moom mu gën a fës si manifestation bi. Mm-hmm. te yàlla dimbali nañu lépp lu ñu am def nañ ko si ba moom bokkoon na tey si ñu gën a fës si manifestation boobu ba ñu bari dañoo yaakaar ni manifestation boobu manifestation Diop Taïf la te nekkul manifestation Diop les détenus nañ ko defoon. Mm-hmm. mooy bu ñu doon def plan loolu waaw waaw di sant tamit ñu ma si àndal ñëpp. Mm-hmm. surtout waa volontaire patriote aw ma seen fay wóolute bu ñu am si man damay dem ba mujj yàlla xam na ni. man kersa sax daf ma siy jàpp. damay dugal dugal dugal ba dañ naa ma jibi lii ngay jënd di ko dugal di indi ay affaire yu wóor wóor bu ñu la wóor woon lii duñ la ko teg Fatima Zahra mm-hmm. waaw ñu leen sant bu baax a baax a baax ak waa diaspora bi ñëpp bàyyiwul kenn jërëjëf di la wax ni nag mm-hmm. lii ma man dama koy yóbbante Diop Taïf waaw ah. am na ñeneen ñu nekk volontaire patriote mm-hmm. ak yeneen groupe mais surtout volontaire patriote am na ñeneen ñu fa nekk ñoo xam ne jàpp nañ leen te ñu foofu te Diop Taïf bàyyi na leen fa te xam na leen ah. waaw moom xam na bu baax lu mu si war a taxawee lépp lu mën daal pour def ko. Hmm. pour ñooñu tam bañ a yëg dara ba keroog yàlla di tegg li natt bi mu leen teg. Hmm. nañ ko def daal. ok jërëjëf ji.